bi dina dindi ballonnement ak fatiguement général bouteille sirop salaamaaleykum chers internautes d'univers info TV day nekk chaque jour mbégte contentement di ànd ak yéen euh, ndax topp bi nga xam ne moom ngi ñuy topp à travers notre chaîne leader tey nag ñu ngi fii boo ñu gisee ci porte bi nekkatul foo xam ne euh, miin ngeen ko bu baax a baax muy grand théâtre fa seeni ñëw euh, fekkee li nga xam ne moo di préparation événement bu rëy boobu nga xam ne moom la ñànku di waajal ci biir nag la ñuy dugg jéem fee am artiste comédien yi séq ak ñoom waxtaan waaye waxtaan ak ñoom li nga xam noonu la ñuy préparer événement bi ak nan la war a demee univers info TV comme ni ma koy waxee saa su ne restez coté sur univers ñu daal leen indil ay information yu wóor yu fiable te palpable donc sans plus tarder damay ànd ak sama caméraman bu wóor bi nga xam ne macha allah fu mu fekk image da koy jël ko dafa wóor moom amaat ñu daal di dugg ci biir nag daal di am image yu doy waar ah ray reportage amul fenn ngeen mën a xam programme bi nan lay déroulé avec Niankou Faramareen maa ngi lay nuyu di nuyu waa univers euh, info di nuyu ñëpp internet yi nga xamante ni ñoo koy seetaan di wax ni euh, maa ngi lay siyaar yooyu bu baax a baax a baax la ma sow coono sonn nga torop ci gisante bi ndeysaan <laughs> tonton Tapha ñu ñëw fekk la fii ci euh, préparation li nga xam ne moo di jour ñànku bi ñu gis ni que euh, troupe bi bokkoo ci lu tax adhésion bi yomb nga mu nekk comme en famille. waaw xam nga ñànku suñu mbokk artist la. donc bu amee programme oo ci li nga mën a def mooy nga ñëw jàpp ci programme bi parce que suba keneen dafay xew xewle woo la keneen suba xewle woo la donc bu ñu ko xamee bu yàgg nag bon daaw yëgaloon na ma ñëw ma parce que bon dama nekkoon ci ay bagages ren mu fekk ma xëy na am tuuti jot rek ma ñëw jàpp ci programme bi loolu du du du dara suñu mbokk artiste la. Hmm. mais est-ce que facilité bi la facilité bu am na ci artiste dañuy faral di wax ni que xol yi du juboo pour ñu fekkante c'est dafay am différent wala mu xaw a métti. ah xam nga nag man sama xol laa xam mm-hmm. <laughs> waaw keneen ko am xol bu ñaaw nag yaa xam mais man en tout cas daal ci biir milieu bi ma nekk nii bépp artiste boo xam ne soxla nga ma ci li ngay def soo ma owee dinaa ñëw mm-hmm. waa yenn saa yi nag li nga wax dëgg la am na ñoo xam ne da waxuma sax ñëw mais boo leen woowee téléphone sax la jël mm-hmm. donc ku nekk ak sa xolu bopp la mais adduna bi moom dafa yomba dundee soo gisee ni lu waaye def boppam rek amul problème mais man moom képp ku ma woo ci programme wala nga woo ci tournage wala lu mu mën a doon lu may def dinaa ko bàyyi ma ñëw mais am na ñoo xamante ni moom hmm, doo leen woowee téléphone moom da ngay sonal sa bopp rek dund jël de <laughs> euh, ñu xam la ci théâtre nga xaw ci yàgg tuuti am ci expérience tey ni nga gisee jeunes yi di ko théâtre est-ce que dal na xel ndax boo xoolee am na image yu bari ñu ngi naan sax c'est un peu pornographique comme série euh, bi nga xam ne moo di euh, cœur brisé. waaw xam na am na scène yoo xamante ne wax dëgg yàlla duma ko seetaanuma ko mhm. donc man ni ma ci wax mais en tout cas daal ku nekk li ngay def yow la engagé du dëgg. Sénégal dafa naq day waxee tey boo waxee nga ni par exemple affaire bi lii la laaj ñun loo dafa iñaan boo laajee affaire bi lii la lii lii garaawul ñu ne kii fu mu jógee donc ku nekk da ngay def li nga xamante ne nag da nga ko li nga la mais théâtre am na yoon boo xamante ni ci lañ war a jaar parce que dañuy éduquer donc nag éducation bu demee ba nga xamante ne bu ñu ko gisee mu am yàqu-yàqu loolu dootul éducation donc ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi dañoo war a dem jàngi métier théâtre métier la bu nuy jàng comme ni ngay demee classe tey gis nga yaa ngi fekk ci répétition noonu la ñuy jàngee théâtre xam ne fii nga war a taxaw lii nga war a def waroo def lii waroo def lii donc ñun man boog bi may dugg ci biir théâtre bi dem bi dafa ni moom dama lay def nit ba pare doog lay def artiste mm-hmm. mais léegi dañuy jël benn mm-hmm. mu yaakaar ne tout est lépp la war a def donc moom site internet mi ngi fi ah mm-hmm. da ngay dem ba am cent ans cent quarante ans yàlla bàyyi la fi say doom nekk fi say sët nekk fi bëgg a nekk dara ci biir réew mi ñu génnee la sa image u maam hmm? wala ñu génnee la sa image yaay bu mu defee loo xamante ni waru ko def parce que xaalis moo tax mu def ko donc loolu yow mi koy def yow la engagé. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey est-ce gis nga ni koo xam ne dafa war di jàngal nit ci wala porte de voix yoon la muy sol yenn habillement yi wala séquence yoo xam ne sax dañuy sumeeku moitié nu. ah mooy li ma wax léegi rek man daal li nga xamante ni du ko def laay calculer ku nekk nag li nga xamante ni yaa ko sentir ñu sant la ko nga def ko mm-hmm. loolu yaa xam ne tax nga def ko. en tant que nga am expérience tey boo doon joxoñ baaraamu tuuba maison yi la wala acteur bi en en personne. non aw ma kenn ku may joxoñ baaraamu tuuma fi <laughs> aw ma kenn ku may joxoñ ñoom ñooy sélectionné maison de waaw mais xam nga tamit boo sélectionné affaire am na réalisateur am na artiste bi nga xamante ni moom mooy xam lii laa war a def ak lii laa warul def donc ma nekk ma fi di joxoñ kenn ku nekk daal li nga xamante ni yaa ko bëgg def nga def ko yow la engagé waaye du ma joxoñ producteur du ma joxoñ kere gi du ma joxoñ euh, réalisateur du ma joxoñ kenn ku nekk li nga xamante xam nga yow tey suñu la waxoon nga dem jouer ji yooyu doo ko def ki koy bëgg def nag xam na lu tax mu def ko. mu ngi noonu mais en tout cas man du ma ko def. te it man du ma xam du ma duma ma du ma du ma du ma xëy na troupe bi ma bokk xëy na artistes yi am nañ xelu dun ko def. Mm-hmm. tey nan nga gisee li nga xam ni moo di maanaam vie artistes yi c'est différent ak vie bi nga xam moom la ñu dund maanaam boo gisee ñi yenn ñi yëg seen succès pour nga wax ak ñoom si tout à fait problème par rapport ak ñeen ñi nga xam ni yàgg nañ ci ku ci mel ni ay ñoom pen ñu yàgg ci carrément ni ñuy yëgee succès c'est par rapport ak ñeneen waaw fii moom ku fiy jéem a yëg yëglu succès da sonal sa bopp rek parce kenn du fi star fii adduna bi amul star yonte yàlla Muhammad mooy star bi te artiste bu fi yaakaar da siiw wala da ngaa ba yaakaar ni bu la nit ñi rombee waroo leen nuyu wala waroo wax ñoom da ngay sa bopp rek parce nit ñi ñoo tax ñu lay seetaan donc nit ñi ñoom ñooy seetaan YouTube bi ci vie yooyu lañ lay fay donc fekkee ki seetaan moom mënoo ko romb sax nga Euh, da nga jàng li nga war a def mu leer ni kii taxaw nii tey moom moo tax man ma nekk li ma nekk kooku boo ko rombee yow moo waroon normalement yaa war a sukk di ko nuyu parce que moom tey mi ngi lay bëggee gënoo ko yaay gënoo ko papa gënoo ko dara moom fële lay jógee daw ñëw fekk si la ay waay sama fan sa baa mais loolu dafa neex mais nit ñi bu ñu yaakaar ne star star amul ci réew mi de amu fii yonente yàlla Mohamed mooy star bi nañ ko xam <laughs> waaw lool la affaire bi. absence bi gëjoon nañoo gis moom ci de xam nga instant biñ toll ni xam nga instant biñ toll nii euh, télé bi gars yi dañ koo xaw a daw gars yaa ngi site internet yi fa la ñuy dawalee seen série mais bon télé moom bëriwuma affaire yu ma ciy def donc mais maa ngi ci site internet maa ngi am série yu may tourné euh, waaw. Mhm. tey boo benn conseil bu artiste war a comporté woo nan nga. artiste daal ni mu war a comporté woo mooy dina ne comme ni nit njaay di comporté woo <laughs> waaw artiste ça ne veut pas dire dof dofuñu dara jotu leen. artiste bu fi bëgg xaalis def loo xam ne waroo ko def wala nga yaakaar da ngaa yegg succès ba nit ki romb ni la bopp ngeen nekk nit su leen woowee téléphone ngeen jël su leen nit ñi nuyoo leen gënuñu kay. lu tax tamit tamit artistes yi bu ñu feebaree maanaam ñu leen di ketal te lu ñëpp la ñuy ketal. Mhm. Sénégal fii. Mhm. Ah, ñëpp la ñuy ketal nag. mais wala benn association boo xam ne ku feebar dina la jël en charge mais genre yi dafa bëri ci artistes waaw xam nga ubbi nañ fi couverture maladie xaw ma universelle pour artistes yi waaye fu mu ne ndax xaw man wax dëgg yaa artiste laa xaw ma fu mu ne donc loolu euh, pro kii bi ci war a am communication bi ci war a am moo ci amul mm-hmm. mais fii du artiste rek la ñuy ketal chaque jour boo demee euh, am na télé yoo xamante ni chaque samedi ñu ngi ketal ay nit xëy na artistes yi xëy na benn Moustapha moom bu feebaree bu ñu ko yegee ni moom mi ngi ñaan ndimbal mais pour lan Sénégal tamit tere nit ñi ñaan ndimbal. mais dañuy wax ni ko loolu rafetul parce que ñoom lu ne defal nañ ko Sénégal yi kon war nañ leen a fay ne bu ñu feebaree. waaw léegi bu leen ñoom ñu mën a génn seen gémmiñ ni man damaa feebar ku may jàppale léegi luy problème bi ku mën def ku mënu nga tëj sa gémmiñ tee sa xaalis am déet mais du artiste rek lañ fi ñaanal ndimbal am na ñu bëree bëri ñu fi feebar ñu gën a feebar artiste yi ngi leen di ñaanal ndimbal ci pet mais benn Moustapha bu feebaree tey mu ñu génn ci télé bi ni way tonton Tapha dafa feebar yàlla tere dafay ñaan ndimbal mais loolu amul problème tamit àdduna bi fii Sénégal jàppalante la bu la nit ñi nangul jàpp parce que da ngay nekk ak nit koo xam ne dafa nga xam ko ngeen nekk lu yàgg tey nga feebar mu toog di la seetaan mais bu fekkee da ngaa dem ba jaaxle ama loo fajoo mais artiste nga da ngay dem nga génn ci télé bi nga ni damaa feebar nit ñi def seen dërëm def seen ñaar dërëm nga dem fajo ji artiste bu fi rëy naan ay du ma dem di di di wax dama feebar da ngay sonal sa bopp de parce que ñi war a jàppale waate ñoo jàppale waatewul am déet mm-hmm. hmm? tey bu fekkoon artiste boo xamante ni tey yaa ngi ci biir réew mi nii nga feebar ah ñu dox nank mën a jot ministre de la culture ni ko ah tonton dafa dafa feebar du ñaan dimbal am déet mm-hmm. mais balaa ngay jot ministre de la culture fi mu nii nga nga dox dem Touba moo ko gën a yomb parce que seen bureau pour nga dugg fa problème mais artiste boobu bu feebaree bu jaaxlee ay mbokkam amuñu dara wala ñu dem ba jeexal mais dañuy génn télé bi ñu day ñaan ndimbal te loolu la ñuy xaar boo nee damay ñaan ndimbal si télé bi ñoom ñëpp ñu ñëw way def nañ fa benn nangam amul sens war nañ di nemmee ko artistes yi xam naka la ni système bu ñuy def ba xam ni tey Moustapha Gaye mi ngi ci jàmm xam beneen ni ñuy def ba beneen artiste mi ngi ci jàmm mais bu ñu xaar artistes yi di feebar wala nangam nangam wala ñuy xaar artiste bi génn ci télé bi ñu naan dafa feebar ku nekk daw di ñu indi sa xaalis amul sens du dëgg mm-hmm. mais artistes yi nii ñaane ndimbal noonu la ñi ñi ñaane ndimbal loolu amul problème Tata Fa ñu ah, maa ngi leen di jaajëfal waa Univers euh, info waa di kontaan ci interview bi instant bii maa ngi ga parce que ba ma commencé woog léegi xam naa <laughs> léegi mat ñeenti weer mais nga am jom rek <laughs> yàlla yàlla jàppale leen mu nekk télé bu mag incha allah yàlla mën na ko te yàlla euh, ma dans benn message mooy ñi am alal ci réew mi nañ yërëm ñi amul alal bu lañ bu ñu xaar ñi dem ci ñoom góor ñi fi nekk di def jigéen ñi lu warul nan leen yërëm. te ñu yërëm xale yi jigéen ñi te wàññi wax ji wax ji c'est trop mm. Sénégal wax rek waaw wax rek lu ñu war a jëf dañ koy wax nañu jëf te bàyyi wax ji du dëgg maanaam ku feebar bu nit ñi ku mën a doon artiste sa ku mën a doon ku feebar wala moom soxlo buñ ko yëgee ci pet bu nu xaar mu koy siiwal pour ñu def ko nit dafay am sutura nit tey am na ñoo xam ne dañoo feebar nga baalaat ma arrière dañoo feebar dañ koo wax ci suuf ba sonn ñu bañ leen a faj te seen mbokk yaa ngi fi xaalis Sénégal boo feebaree dan seetaan nii nga dee ñuy dof dof man moom dama koy wax fii clairement bu ma feebaree yàlla bu ma feebar sax di ñaan kenn ndimbal mais bu ma feebaree ku ñëwul hôpital ba seet ma wala sama ordonnance jar téeméer jëndoo ko barke yonenti yàlla Mohamed bu ma deewee boo fa indee cent franc baalu ma la ko ñaanu ma yàlla sax di feebar di dee man ama bëgg xëy rek ma dee benn yoon parce que fii boobu feebaree da ngay sonal rek sonal say mbokk du may xëy rek man yeewu nii après anyway reetaan ba dee laay def waaw ah, mi ngi noonu waaw man noonu laay deewee incha allah rabbi waaw mais feebar dee nii lu ma def parce que bu na nga fii torox rek ñu ni wéy sa doom maag sa papa di wax ñu naan non sa papa fii la nekkoon di ñaan ndimbal nit ñi xamatu xamatuñu néew pour ñoom boo dee sa yaa ngi dund ba léegi lu la bëgg wax dan la koy wax nañu dawal ndimbal ak yërmande ci jaami yàlla yi yërëm jigéen ñi yërëm xale yi Sénégal ñu wàññi wax ji te maa ngi wax ne élection yaa ngi nii di ñëw dañ ko def ci fulla ak fayda def ko ci jàmm ak salaam ñi war a bokk bokk ñi warul bokk xam ne yàlla boolewu leen ñu war a voté sañse ba rafet dem voté te bàyyi xuloo bee xeex bi amul sens daf ñuy mettre en retard du dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu <laughs> di leen rappeler que ni vous êtes sur Grand Théâtre préparation événement ñànk bi euh, sànq la ñu am ki nga xam ne moo di tonton Tafa tey dañuy jàkkaarloo waat ki nga xam moo di Sémou nekkatul koo xam dañ koy présenté ndax loo na ku ne ah moom lañ fekk fii ci biir Grand Théâtre fa seeni waxtaan ak moom Sémou noo def sant yàlla bu wér ak di leen ziar bu wér di am mbégte ak contentement ci dalal bi nga xam ne moom ngeen ñu dalal. Mhm. di leen ziar bu wér wér. fu ñëw fekk la fii ngay préparer li nga xam ne moo di événement ñànku bi préparation yi métti na wala ça c'est été tamit loo xam ne à cœur ouvert ngeen. oui non ak euh, préparation yi moom métti na mais lu baax yombul comme lu ñoo bëgg mu baax faaw mu métti. Mhm. noonu lay demee mais tamit à cœur euh, ni koy waxee sax à cœur ouvert mhm. moom lañ koy defee <laughs> ñu daal di ñëw euh, fekk la fii nag ñu bëggoon xam rek ni est-ce que Sémou mu ngi ci biir groupe euh, ki nga xam ne moo di ñànk wala par invitation la fi. oui non par invitation man par invitation rek laa fi ñëwee oui. kon nekkoo ci groupe bi. non non nekkuma ci groupe bi. gis nañ ni yaa ngi reetaan loo Sénégalais yi fan yi am ay wax yu maanaam ay rumeur yoo xam ni bëri na ci côté cinéma bi ndax boo xoolee gars yi ñu ngi joxoñ baaraamu duma li nga xam ne moo di série Cœur brisé ndax nee nañ am na partie yoo xam ne c'est un peu pornographique. ok man nag xam nga sax euh, série boobu yàlla dogal na du ma ko suivre moo tax mënuma cee wax lu bari parce que du ma koy suivre quoi. mais en tant que actrice lan moo tax doo seetaan sa morom artiste. non dama dul am temps rek damay seetaan de mais des fois nag xam nga jot gi mooy la ko dul may. Mhm. c'est man série yi ma def sax laa dul seetaan waxuma daan ak yeneen. Mhm. Ah, parce que temps bi quoi. oui ñun buñ nekkee ci lii buñ paree rek ñu ngi ci nekk leneen duñ am jot. Mhm. loolu la mais. mu nekk na tey loo xam daf ko jàng wala lu mu ñëw fekk ay euh, don la bu mu fekk ay parents def ko ci biir yaa. métier bi métier buñ jàng la rek. waaw léegi ci des nag day nekk ci ñun après comme day doon nelaw ñu yor métier bi mën ko yee ko rek mu yeew. waaw mais man aw ma parent buy comédie wala buy def non man dama ñëw rek jaar sama kiiwu bopp yàlla dimbale ñëw bu nekk métier bu ñu jàng nag tarbiyoo ko macha allah mm-hmm. waaye. mais mu soo gisee télé bi mi ngi reetaan loo nit ñi def lu ko saf mais ak ni nga jàkkaarloo da ngay xam ni nitu kersal la moo tax lool. ah loolu yàlla xaw ma yàlla la waaw <laughs> ah, parce que tamit les métiers la mm-hmm. xam nga personne ak personnage suñu benn les personnages bi la rek. buñ jógee ci personnage bi dañuy ñëwaat nekkaat tamit ñun kiñ doon quoi mm-hmm. oui. mais tey lan nga ci dund lu la mu marqué maanaam benn partie séquence boo xam da nga ko dund mu xam mu metti la sa xol nga nga yëg ni lii c'est naturel. bari na. ban la rek. Mm, oh, dafa bari mënuma fee nekk di ko parce que léeg-léeg nga dund loo xam ne yaa ma gën a xam. Mm-hmm. waaw mais lépp fàttalikoo ci benn boo xam ne dugg na la carrément nga xam ni lii dafa naturel ci yow ba après daf lay def benn xol ba jooy sax mën na ci am. non man moom lépp ma dugg ma lu ma def rek dugg na ma. Mhm. ça parce que bu ma dugguloon mënut ta dugg nit ñi. munoo def lu la duggul parce que fawuñu quoi. fawuñu li ñuy def nii nekkul lu foo quoi dafa nuroog fo rek te du fo. Mhm. waaw boo ko jàkkaarloo da ngay jàpp ne fo la te du fo mais lépp lu ma def rek dugg na ma. Mhm. a parce que moo tax suñu bëggee taxaw fii di ko wax tamit yaakaar naa ne temps beeg émission bi fi lay yem mhm. <laughs> waaw. moo tax seen biir duñu ñu faral gis demalante beeg fekkalante bi seen biir bareetu ci ankay ñu ndax loolu ci daaray Kocc lañ ko daan gis. fekk nga ñu fii ñuy demalante ko dikkalante. Mhm. waaw fekk nga ñu artistes yëpp a ngi foofu de. <laughs> ñu ngi demalante di dikkalante. Mhm. waaye. léegi lan la xaar ci Sémou ci li nga xam ni moo di spectacle jàngu. bari na liñ ci mën a xaar bari na ak du sax spectacle bi kese na gars yi xaar Sémou te xam ne yeneen ak yeneen a ngi ñëw mu lan lay waajal. bari na xam nga cat dafa gaaw te mooy loolu gis nga catu nañu ba sama loxo bi di metti ah, sa mbokk artiste yaa la ca. non du mbokk artiste yi sénégalais yi la. Hmm. waaw séemu séemu séemu séemu rek. Hmm. <laughs> waaw. mais nag macha allah dafa xew te dafa mën li muy def. ñun nag xew xew yi duñ ko def. Hmm. parce que ñun ay yàlla lañ te yàlla du xew yi. waaw comme ñun dañoo bokk ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. te kenn ku ne xam na ne yonent bi du xew yi ñun mënuñoo xew yi. waaw <laughs> mais tey jii nii boo doon defaraat ci milieu théâtral euh, boo doon wax tey da nga naan kër maison de production yi la wala élément yi nga xam ne moom la ñu war a recruter moom la ñu war a xoolaat. non tey pour ñu defaraat ko day xaw a jafe parce que pëccu xoo bi da cee bari. Mhm. léegi daanaka ñi nga xam ne métier bi nekkul ci ñoom dañu dañ cee bari comme ñi ni métier bi nekkul ci ñoom dañoo bari nag daanaka defar ko day jafe mais ñi jàng métier bi xam métier bi mën métier bi teg ko ci yoon doo leen gis yu ñàkk fay doo leen ci dégg. Mhm. voilà noonu lay demee. kon daal dafa jaar ñu daal demaat ci école yi jàngat li nga xam ne moo di aar. waaw mais même bu ñu ci école tamit ñu jege ñi nga xam ne mën nañ ko xam ko jàng nañ ko ñu fexe gëstu si ñoom parce que instant bi nag yaakaar naa am temps wu demaat ci école yi di jàng du am parce que nit ñi li nga xas ba visé nii rek di ko def pour jàngalaat leen day jafe. boo xoolee nag ci métier yëpp la boo demee ci làmb ji ba ci xoo gi bari na ci ba ci seen métier bii ci métier yëpp la mais kenn ku ci ne da ngay fexe yar sa bopp. fexe jàng métier bi bax boo lëggee parce que ci kanam tuuti ku amul métier bi da ngay dem toogi mm-hmm. waaw ci kanam tuuti ku amul métier bi rek da ngay dem toogi fexe am métier bi nag dafa gën a wóor di làmbatu way mm-hmm. tey boo doon bàyyee conseil li nga xam moo di acteurs yi actrice lan nga leen di wax ci comédiens ak comédiennes yi mooy ñu gën a xam fu ñu teg seen tànk mm-hmm. bu leen dara yóbbu bu leen dara fëkk fi tegoon seen tànk dem ak barki dem ñu kon na ko faa teg ay ca man loolu laa leen di conseillé ñi nga xam ne nag bëgg nañ ko di ci dugg nañ xam bu baax fi ñu teg seen tànk ndax aar mag ñi dañuy faral di wax ne taat buy tàkk la amul sër bu ko mën a wodd comme amul sër bu ko mën a wodd nag képp ku ciy dugg nag na nga xam ni ciy duggee ful la fayda personnalité mhm. waaye maa ngi leen di fay yéen tamit di leen bégee bu baax a baax di am mbégte ak contentement ci dalal bi jëf